show you how to quickly open one with Shopify. ይገኛል የሮች ደክብ ደገር ከክል እግርክ ስለሆደ ሰክታይ ውርስ ውርስክ ርስችን ባንድሚን የደፍልኝ ዶንታይ ጎጀም ባጓጀም በጎጀም ጀሙ ብራይ ጎን ራይ ድንቅ ቶፎንድ ሳይ ነቨር ጎነ ሳይ ሰው ሰሪ እያ ነቨር ጎነ ሳይ ሰሪ ሰሪ አይ ቦይ በታኸለሊ በላማቴሪ ሰው ሰሪ jottalante nuyoowu yoo kaalante simili nga ximili tegu ci dox ba dee droite et gauche xaar no bede pied Dakar le temps passe squat gauche man taluma blow show oh no nene man pene gis naan ba la fii yomb dékku Muchachos cápula, de Cuba, mis como hermano, Friday Monday ba Friday day maa ngi nuyu bépp sénégalais ak foo munti nekk ci kaw suuf di la ñaanal jàmm ak salaam ak mucc ak xéwal mag ndaw góor ak jigéen di ñaanal suñu mbokk senegale yi nga xam ni tey wuy ji nañ suñu borom subhaanahu wa taala di la ñaanal yàlla yërëm leen di ñaanal ñi nga xam ni ñoo faatu ci wax jii may wax nii waxi caaxaan waxi kesew kesew waxi toroxalaate waxi wàccewaate waxi pouvoir ñu rey ci quatorze doomu aadama ay xale yu ndaw ku ci nekk rek jëlal sa bopp féetale ko foofu ci benn bakkan bu rot cëy bu doon yow cëy bu doon yow xëy na boo nekkee yow mal xiyaam di ne cëy gaa yi seetaan nañ ma de ba mu wuy ji nii suñu borom bu ma yàlla mayoon chance tey ma delluwaat foofu yaakaar naa ni buñ koy def keneen dinaa taxaw reyante Sénégal nag comme niñ koy waxee ñu de buñ juddoo ba léegi ñu ngi seetaan làmb waaye làmb changé wul dara ci suñu dund bu ñu juddoo ba léegi ña seetaan seetaan nañ fi Tyson seetaan nañ fi Yékini Setan nañ fi ñepp ñu ñu bari mustafa gay ñepp bàyyi nañ waye senegal ngi tar ba legi problème ya nga demeure ba legi ña ngay ray doomu adama ya ña ngay pasane doomu adama ya waye déey waye déey lamb ga ngay continuer mom tam ci tiaxanam ci divertissement ci divertissement am nak ah bala may privilégié ab tiaxan ma deglu li nga xam ni mi ngi fi li fi ne ràng dàng fàng te du fi mës a jóge loolu lañuy njëkk a lijjanti balaa ñoo dem ci loo xam ne tey mu am suba mu jeex ginnaaw suba mu amaat ginnaaw suba mu jeex loolu caaxaan kese la képp képp donc let's focus sénégalais yi ñu ngi toggoon di xaar ñu yee leen ci li am ci li ñu xëy rek mu ne bëreet dal suñu kaw te xamuñu fu mu jóge te xamuñu lu ko waral Sénégal ci peuple ak pays bu calme bu docile bu dal waaye bu yaru sax boo xam ne mun nga teg ci kaw seen kaw lu ne duñu yëngu duñu bouger lépp ñu jël ko bàyyee ko yàlla ne yàlla baax na yàlla ku baax la waaye dëkk boobu bu jegee ba fippu nga xam ni tooñ nañ leen de nga xam ni ñu ngi doo au mur nga xam ni teg nañ leen lu ñu àttanul nga xam ni nag ah fii nag ku xamul fa nga jëm ah dinga nga jéem a fippu ndax boobaa fippu day doon farata donc ñu ngi tolloon immeuble Kébé film bi dem na ba immeuble kebe lu tax ma yemale ko foofu mbax ndax immeuble Kébé fa la ba yemoon bu ñu defee li ñuy def ci guddi gi yëpp ñu yem foofu lañ atterrir moo tax ma bàyyi leen ngeen nalaw ndax ci guddi gi. ñoom lañ faa tëdd nalaw aji saar immeuble kebe la fanaan ci jour boobu moom ak Mohammad Siidi Mbay fa lañ fanaan ndaw si nga xam ni mooy coiffeuse bi di doomu ndeyu Dior te Dior Diagne dugal ko ci film bi moom dafa ñibbi chauffeur Mamour jàllo bi bi nga xam ni moom dañ kaa yàpp Mamour Diallo ko fa yónnee rek defal ko échange ba mu fees tep tep tep tep réservoir plein pour muy yóbbu euh, ñi nga xam ni ñoom la missionné guddi gi nag ñun nalaw nañ waaye radar yi nalawuñu Siri Mohamed Mbaye ma ngay nan ci immeuble kebe Adji sar nan ko nam bobu Adji sar mbiri yi nako dole ko Adji conscience am tul xel ma nga nan ko cey aji cey aji lu la dugal ci li lu la dugal ci li cey aji li cey aji Siri Mohamed Mbaye assassin bu ànd ak sang-froid exploité ab xale bu ndaw ab villageoise bu jàngul xamul dara nekk wàcc bees comme sama genre gi Dakar bu saf-sap yem ci quartier yi ñuy wooye Grand Yoff Liberté 6 xamul liggéey gii riir diggante marché ak seen puqus boobu en face Sogabeg diggante Sogabeg kër madame Tall diggante kër madame Tall suy bote foofu rek la xam ndeysaan foofu rek la xam a ah sadik boobu nonu Sidi Muhammad Mbay nee na dalal ne ko aji aji dalal aji andal ak sa nafsu aji gis nga lii bu aji lumay may am lu lay njëkk tek ci sa loxo passeport diplomatique la lii la ko Sidi mohammed Mbay wax passeport diplomatique aji ne ko luy passeport diplomatique mu ne ko passeport boo xam ne fu la neex dem fu la neex dugg mun ngaa añee Amérique reere Australie Sidi Mouhamed mbay na ko buñ jógee ci loolu passeport diplomatique dinga am kër terrain oto alal gune ne gàññ te lépp ba léegi waxu ko Mamour Diallo ah. ba foofu noonu moom Adji Raby xamul ni Mamour jàll moo nekk ci ginnaaw mooy investigateur méngee na ko pour Macky Sall la pour Macky sàll pour nguur gi la loolu nag Adji Raby rek moo fa nekk ci néeg ba ak kuñ naan Sidi Mouhamed mbay ca la ñu gis ñoom ñoom ñaar ca la ñu gis dañoo jàpp ni ñoom ñaar rek ñoo nekk ci néeg boobu mais bu leen fàtte ni néeg boobu noonu ñu leen jox apartement bi ñu leen jox bu yaatu boobu <laughs> kii joor Dior ak jëkkëram Antoine ñàkk jom ñoo leen ko jox waaye ñu ngi leen topp ay radar te ñom xamuñu sax lu xew ndaysan ñaari gone yooyu donc Sidi Mouhamed Mbaye ma ngay dalal xelu Adji Sarr di ko ay privilège diko gëmlo passeport diplomatique diko gëmlo auto diko gëmlo kër diko gëmlo terrain diko gëmlo tukki fu la neex dem diko gëmlo alal gu bari au nom du gouvernement sénégalais ah ba aji xel ma xaw a dal tuuti nag mu ne ko nañ dem tëddi aji saar dem tëddi moom Sidi Mouhamed Mbaye dem tëddi waaye aji saar dey Sidi Mouhamed Mbaye nalaw na de waaye aji saar guddi gi yëpp da onk wallahi la azim guddi gi yëpp da koo onk cëy boo déggee aji saar ci onk bi keroog aji saar mi ngi naan

amna nit yo xamni lal bañu tam bo len fa jëlee yóbbu len ci benen lal rek duñu nalaw aji sar nak amul vraiment nalaw nalaw bobu nak guddi gogu yeb yéen yée ngi nalaw de kenn yegul senegal ku dul comploteurs yi amna na ñuy woy l'axe du mal bobu l'axe du mal ñi ngay coordonné Mamour Diallo Dior Diagne Antoine ñàkk jom Moussa Fall Bassirou Gueye Mahmoud Saleh sans sans scrupule ña ngay guddi gi Sénégal yépp ngay nalaw ña ngay woote gaa yi nag ah certificat médical bi moo ne woon seen problème certificat médical bi nga xam ni dafa wone ni ah Adji Sarr tëddeewuñu ko looloo yoon seen problème Mamour Diallo tiit tiit lool ndax du bandi nag du bandi sàcc la mais du bandi dafa am bandi am sàcc moom sàcc la 94 milliards mais du bandi te moom benn en la am moom mooy moom ak Ousmane ko dañ doon liggéeyandoo te Ousmane Sonko dafa gis sàccam googu na 94 milliards na nga ko luubalee trois quarts bi sax la jot nag trois quarts ba di xaar quatre quarts bi donc mais bandi baa ngi noonu peegar ba Dior Diagne ma ngay dalal ci téléphone moom mooy doon coordonné lépp nag boobu ma ngay këram muy kër baayam ga mu toroxal baayam dee mu sàcc kër njaboot ga dàq leen ne baayam da ko yoroloon alal kër gu mu dëkk Antoine ñàkk jom dem sëyi moo tax ma ngay woy Antoine ñàkk jom ndax daa sëyi góor gu sëyi la kër Joor Jaañ la dëkk wetu assemblée nationale kon góor gu dem sa kër jëkkër sa kër jabar dangaa sëyi kon Antoine ñàkk jom daa sëyi ndax kër joor Diagne lay sëyee Dior Diagne nag l'axe du mal moom moo fay daam bi future première dame moom moo yore téléphone ba toute la nuit di coordonné Mamour Diallo tàppet ba waaw ah, man day ah affaire bi de moo ma jaaxal certificat médical bi mu ne ko Mamour takkal sa ndigg góor du dellu ginnaaw góor du ragal man bu dee man jigéen maa taxaw ci kanam di ko jaayante sàkkamtuma laa góor xaw ma loo fiy daw walla di ragal wala dangaa fàtte ñun ñoo am pouvoir bi ñun ñoo moom bi ne ko ñun police bi ñun ñoo moom gendarmerie bi ñun ñoo moom armée bi Mamour looy daw looy daw bay daanu ndank rek am ki mom dina tan ndem carrément saga ni ki mom Ousmane Sonko dina tan ndem dalal Mamour Diallo Mamour Diallo dalal mu jël lol moy l'axe du mal mu jël téléphone wo mom wax nak Antoine jom ñak jom parce que nena ko police bi ñoko mom jëkër moko yor konk c'est acquis japp na ni police bi c'est acquis buñ ko yobone dik c'est acquis buñ ko yobone BAG c'est acquis ok wone na ni fofu kon police bi ñom ñoko ko non la ko waxee Mamour Diallo léegi nak gendarmerie bi lay dem accaparé ji loolu yëpp ci guddi la xewé yeena ngi nalaw Sénégal bobu ñëpp ngi nalaw ki la wowe Moussa Fall ci la woowee mussa Fall mussa Fall nag jamono jooju dëgg-dëgg colonel la rek colonel sale boulot bu mu def moo tax mu doon général boobu colonel la woon simple mais dans un pays sérieux colonel du xëy rek bum ñu def ko général mais mafia bi mu woo nag mu bugg a accaparer gendarmerie bi téye ci loxom mu woo Moussa Fall mais mussa Fall nag vraiment tiitul woon xamal ko ni waaw affaire bi dey nii la demee. certificat médical bi ah dafa mujjee cóol ndaw si xam na bu yag donc nan lañuy def Moussa Fall né dina ko gérer mes hommes ñoo nek brigade ba gendarmerie donc duñ ko yóbbu police duñ ko yóbbu dik duñ ko yóbbu BG dañ ko yóbbu Colobane gendarmerie sama suis yee Moussa Fall dossier bi man dal ah ok kon kon nice kon et pourtant immeuble c'est à quelques mètres de DIC quelques mètres DIC division des investigations criminelles ville la nek immeuble ville laajte ngeen lan moo tax plainte boobu demul dëj waxtaanee nañ ko ñoom de moom laa lay wax BAG mu ngi nekk ci biir palais de justice immeuble Kébé mi ngi nekk ville ñoom ñoo gën a jege kon mënoon na ko yóbbu BAG yóbbuñu ko BAG mu ne ko xool leen rek espace yi distance yi BAG palais de justice immeuble Québec ville DIC division des investigations criminelles immeuble Québec ville jegante lol, ñu mun ko yóbbu fofu non dossier yoo xamni ni ñu lako ko bum ba Colobane xam nga lu mu ko wax lu ko Moussa Fall wax Né na ko policier dafa bëri wax policier téewul làmmiñam lu ñu jot mu senn ci askan wi gendarmerie nag c'est des militaires dañuy garder comme lii c'est du sale il faut ñu teg ko ci loxo ñu salte ay sadik ay militaires mu ne ko kon bàyyil ma jël ko yóbbu ko yóbbul ko sama fils yi nekk gendarmerie ñoom dinañ ko gérer carrément la ko wax ne ko ndax policier dafa ratax làmmiñ daa bëri wax lu mu xam mu siw kon duñ ko yóbbu dig duñ ko yóbbu BAG malgré que fu jege la dañ koy yóbbu ba kolobaan nii la ko ko waxee ah l'axe du mal loolu yëpp guddi gi la xewee l'axe du mal ne amul problème moom Moussa Fall woo Mahmoud sale ne ko mat na amul benn problème nice donc euh, voilà mission accomplie set na wecc ñu contacter Mahmoud salé wo Basirou Gueye Mahmoud salé wo Basirou Gueye bu fi yene gi dégg han ah. donc lolou moy l'axe du mal mumudu Mamour Diallo Dior ñako wo dalalko, dalal ko te Dior ak Antoine ñak jom ño bok ben lal buñ teud waxtan mu jël téléphone bi mom jigen bi mo gëna doon sax parce que mu nga tëdd donc Dior Diagne woo Moussa Fall Moussa wax ko Mahmoud sale Mahmoud sale yóbbu ko ci Basirou Gueye affaire ba nag ñu ne mat na kon sedd na certificat médical boobu bu yeggee gendarmerie dañ koy falsifier dañ koy changer mu nice mat na donc muy sama waxu baay bi ma leen indilaat pexe du yàqu cim xel pexe du yàqu cim xel bu leen ko fàtte tant que sa xel mi ngi toog moom kese ngay xalaat nii di xalaat da ngay jàpp eh, kii bu ma ko defee nii bu ma ko defee nii day sotti bu ma ko defee nii xoolal loolu yëpp sa pexe la boo nee bëm yàlla ne non du lii lii tak lii la nga cóol kon pexe du yàqu cim xel l'axe du mal nag li moo ne woon seen pexe parce nag Moussa Fall gëmloo na leen ne leen ko gendarmerie mom moy téna di dina sama boy ya fa ne fils je formé lu ma bëgg rek la def bobu mom colonel la nekkagul général nekkagul tous voilà donc gouverneur du palais jusqu'en 2018 mu quitté là-bas de commander la gendarmerie territoriale mais il était juste un colonel il n'a jamais été général au palais il était gouverneur du palais en étant juste colonel parce que faiseur de sale boulot c'est ce que je veux mu général képp ku pour liquider Ousmane Sonko dinaa leen wax lan nga mujjee doon amul kenn ku liquider Ousmane Sonko kuñ gradé wul kenn amul. amul kenn ku ci deal bi, ku liquider Ousmane Sonko ko xam gradé après ben après deal bi da ngay jiite te ku ci nekk poste jot donc a ah, guddi yëpp mat na boobu aji saara ngay nalaw boobu nag Sidi Mohamed Mbaye ma nga nalaw ña nga nalaw ba seen taat tàng kii di coiffeuse bi ñëw fëgg coiffeuse bi nekk rëbës ca rëbës borom taaje rëy ya ñuul di def à la garçon ñëw fëgg kang kang kang kang dix heures zéro minute ñu ubbi mu ne leen pare ngeen ñu ne presque euh, yéen laay xaar pour ñu dem porte ji plainte yóbbu certificat médical bi ak plant bi nga xam ni ci guddi gi moom ku jigéen ki ak mbër bi bu ñuy ñibbi bu ñuy wàcc di ñibbi ñett lañ dañoo njëkk a bàyyi Adji Sarr ci immeuble Kébé Sidi Mohamed Mbay xam nga ñoo ñëwandoo ak coiffeuse bi ak mbër ma mbër mi dëkk mbër boucher ba mbu boucher safar la boucher du moins ñett ñi dañoo wàccandoo bàyyi aji Sarr ca kaw ba ñu wàccee mbër mi andak coiffeuse bi ñu dugg auto chauffeur chauffeuru Mamour Diallo bi yóbbu muhammad pour ñu dem jëli sen muhammad Sidi Mouhamed Mbaye ñoom ñett ñëpp wàccandoo Sidi mohammed mbay fofu la dajanteel ak kuñ naan Abdourahman Sow lenin ma nga plainte ba di len xaar ci souf ci immeuble kebe bobu bala ñoo wacc Abdourahman Sow di Lénine indi na plainte ba di leen xaar ba léegi yéegul Abdourahman Sow di Lénine ci la wàcce ñoom ñaar ñu tàggoo jigéen bi ma euh, coiffeuse bi ak mbër ma mu fa indi woon euh, safur la euh, ba mu fa indi woon jëlee ko ca Medina ñoom ñu yóbbu leen chauffeur Mamour Diallo bi yóbbu leen Sidi Mohamed Mbaye jël plant ba moom la yéegee ci ci kaw ci ascenseur bi donc mu am ñoom am nañ léegi plainte ak certificat médical buñ assuré ni buñ ko yóbbee gendarmerie dañ koy changé falsifié ko plainte bu leen leneen joxee foofu ci suufu immeuble kebe la ko joxee moom leneen Abdourahmane Sow def ko tu gaaf bi donc jox ko Sidi Mohamed mu yéeg léegi am nañ plainte am nañ certificat médical di xaar yóbbu ko gendarmerie ah <laughs> wu ñu changé données yi dëpp ne da ci vingt quatre heures yi ah ñu ne bëreet dix heures ñu fëgg bu ma leen ko waxee coiffeuse bi ñu dem. Lénine nag ngeen ko doon jiiñ du Lénine Gabi Sow frère Lénine la Gabi Sow bindul dara Lénine bandi moo bind plainte bi du Gabi Sow Lénine mu si Abdourahmane Sow ak Gabi Sow ñoo bokk ndey ak baay waaye nag Gabi Sow bindul Abdourahmane Sow di Lénine moo bind plainte bi kooku mooy bandi mooy bandi salte bi ci ay dérive rek lay def catastrophe rek mi ngi ci lépp luy saal buloo mi ngi ci dalay lekk tux cigarette assassin la donc trois yi wàcc nañ fekk leneen ci suuf ñu récupérer plainte bi les deux ñibbi seen yéeg ci kaw voilà mooy loolu foofu la dalalee xelu Adji Sarr di ko wax di ko gëmloo passeport diplomatique cœur auto voyage Khalis, c'est tout c'est tout pour lépp c'est pour Macky Sall le lendemain la coiffeuse réunion à 10 h 10 h 30 poum Auto Mamour Diallo jël chauffeur Mamour Diallo ki nga xam ne ak a sonn ndeysaan chauffeur chauffeur nañ nañ nañ chauffeur yi ndeysaan chauffeur bi De, ti lépp chauffeur chauffeur, xamul sax chauffeur, mu chauffeur, chauffeur, chauffeur rek chauffeur, dañ ko fa chauffeur, rek chauffeur chauffeur Mamour Diallo bi xaar chauffeur, chauffeur, chauffeur, fu mu xaw ci ba xaw man xaw parce que ko donc. xamuñu fu mu fanaane sëfoor Mamour Diallo baa nga leen xaar Siri Mohamed Mbay wàcc Aji Sarr wàcc moom muy coiffeuse bi wàcc Siri Mohamed Mbay dugg ci kanam Aji Sarr nekk ci ginnaaw moo moroomu jigéenam coiffeuse bi borom taadu rëy yi borom à la direction gendarmerie Colobane oto baay daw bum bum bum 10h30 lañ fa jóge avant 11h dugg nañ ci brigade bi nag ci lañ yegg si gaare tak tak boobu nag fekk ñëpp jóg nañ procureur je yeewu na Abdoul Meng yew Meng yeewu na commandant brigade ba yeewu na Dior Diagne yeewu na gang bi coordonné ñoom tamit matin ba oto bi yeggee brigade rek ña ngay coordonné bum bum bum téléphone yaa ngay naaw. entre procureur Abdou Meng Abdou Meng moy commandant bi brigade bi Dior euh Moussa Fall ñom ñep ñay coordonner tak tak tak téléphone yi di naw loolu yëpp japp nañ ni affaire ya mat na ñu capitaine Touré yaw ñu denk ko ko ko gérer l'affaire dañ ko violer quoi bo mu def ki bi bon capitaine euh, Touré nag nit bu maanu la boo ko xoolee ku tuuti la la cax xeereer danga naan sax kii est-ce que militaire la dafa la cax quoi mu toog la aji saar génne ci biti borom taadiire yi coiffeuse bi génne ci biti Sidi Mouhamed Mbay ne aji saar toogal aji saar toog ñu jox ko lépp mu ne ko ana plant bi mu ne mii mu jël plainte bi liir ko gis ni même plainte bi wax nañ ci ay viol buñ criminalisé lépp loi bi buñ voté assemblée nationale lépp ngi ci biir mu jël plant bi liir gis ni c'est au nom de euh, Adji ku ko ku ko violé mi ngi tudd Ousmane Sonko mu ne ah ok d'accord mu ne ko beneen këyit bi mu jox ko moom ci boppam ñi ngi ko def nii moom moo ko dindi agrafe bi moo ko dindi liir gis ni aji saar ah kii xam na góor démb bu ñu ko yóbbee ah lu médecin bi wax mooy ah kii moom mooy lu ma leen ko waxee rek xam na góor kenn xamul kañ la ci caaxan yu métti ya njëkk ya donc mu jël ñaari déglu ko dañ la violé mu ne waaw mu ne nuñ la violé am na keneen ku fa toog nag fu fu may fu mu nekk nii yaa capitaine Touré ak benn beneen gendarme ñu commencé jël déglu ko enregistré ko enregistré sa plainte day am numéro numéro plainte bi déglu ko mu wax luy wax yëpp expliqué histoire film violé dama dafa doon metti dafa ma tëddal di ma kii ay waaye affaire yoo xam affaire xaj sax defatu ko xaj xaj cest à par respect à Ousmane Sonko waxu xale boobu jarul sax wax xamul tax parce que Ousmane Sonko kilifa la mag la am ñaari soxna am njaboot yoo xam ni tey day nañ ni Adji Sarr Adji Sarr mun naa jur aji saar Ousmane Sonko boobu ma ngay nalaw xamul sax lu xew ma ngay nalaw xamul sax lu xew donc aji saar ne fa di wax ay film kuti mbow mbow waxoon naa leen ni film bi ñaar la ñaar donc euh, nu ma leen waxee mooy dafa am kuy yépp pee la procès prata prata dafa une procédure processus procédure bi paraata prata la parloté Adji dafa parloté le la procès procédure parata prata. mu chasseur de primes et de privilèges mu ne chasseur de euh, poste gën président privilège donc loolu lepp paix la paix la ñom la wër paix premier paix bi poste privilège prata parata le commencé parata poste privilège euh, prime le petit ci président procureur le paix projet donc nous euh, devons audition bi immeuble Québec. ba mu ñibbee immeuble Kébé nag toog ñoom ñëpp ñibbi ñu toog ba ci ngoon le soir mu dem kër joor Diagne Adji Sarr fa la njëkk a gisee nag ay ñoom joor jaañ ak le ministre le ministre Antoine ñàkk jom fa la ko njëkk a gisee ndeysaan xam nga rek mun li ma leen waxoon ñu impressionné ko kër Dior Diagne impressionné ko oui monsieur le ministre euh, Antoine Diome euh, ministre de l' intérieur euh, bon Dior Diagne xam nga ku nekk ñu impressionné ko daal Adji Sarr gëlëm foofu la Adji Sarr gëlëmee ñoom parce que ñëw na immeuble Kébé ñibbi waat na immeuble Kébé de bu ngeen di njëkk wax Adji Sarr bu dara amagul immeuble Kébé dëkkoon donc ci la génnee ngoon si bu mu plantee ba pare ci lañ ko jëlee yóbbu ko kër. Antoine keur do astafurlah Antoine jom momuko ko jabara ma ko moom daa sëy Dior Diagne ex gelu Samuel Sar ñom ñaar yag nañ torop sax Samuel Sar ak Dior Diagne ak ñoo yag ak taat yoy ak ñoo xamanté donc Dior Diagne ak Samuel eh, di mooy waxuma faram bi sa Dior eh, Diagne ak jëkkëram Antoine ñàkk jom ah mi nga am da yi ñom ñu nek diko ko impressione monsieur le ministre patati patata <laughs> impressionné ko ñu jox ko mu reer bu sour ñu jox ko jus de fruit jor jox ko xaalis ne ko après nga jënd ay yéré ay dal ay coton ay couche xam nga jigen rek day soxla couche jor jañ moko jox nak du xaliss bu takku sax mais ne ko après comme mom bu len faté ni moment bobu vraiment amugul won ay genre ak yérem yoy la doon sol rek moy yum solo nonu yoy yoy la doon sol xam nga donc euh, Dior Diagne moo ko njëkk jox xaliss fofu xeyna Mamour Diallo ko jox xeyna tamit lay wutal place premier ministre parce que jëkkëram premier ministre après premier ministre ab Macky Sall pousse ni président lolou lañ doon wër ñom ki doon première dame ñom tam poste privilège président pouvoir ñu jox ko donc ñu jox Dior Diagne jox ko xaalis après mu jënd ay yéré dàll coton ainsi euh, rek moment yoy kenn yegul. donc ñu tok capitaine Touré ne day convoquer bobu nak <laughs> fofu tàng na procureur commencé woote euh, Moussa Fall commencé woote teg choc alors jël ngeen ko ah lu mu wax nice ok waaye léegi yéen xoolal mission accomplie na mat na mat boobu capitaine Touré ngi toog rek capitaine Touré ndeysaan ay waa jooju waa jooju lu mu liggéey kooku yàlla rek ko mun a fay barke alxuraan foo ko fekk biroom alxuraan lay déglu. H24 bouclé alxuraan lay déglu biroom doo fa déggu mukk fekk fa ay musique ay caaxaan alxuraan lay déglu suba ba guddi nga bu muy ba bu muy ñibbi mi ngi dëkk nag ci biir brigade bi la moom ak soxnaam ak ñaari doomam ci biir brigade bi xam naa dina ne waaw sama waa ji moom nu mu xamee njaboot gi <laughs> macha allah ay tuutànk mhm. ay tout tànk du ñuy mag ndeysaan macha allah mu ngi dëkk ci brigade ba ndeysaan mais jëlee nañ ko fa bañ koy tëj njaboot gaa ngi ci brigade ba dañoo génn rek bu mu dóoree démission am gaa yi tibb ko yóbbu mooy moom ci biir brigade ba donc ah comme nu ma ko waxee capitaine Touré nag ñu ne ko convoqué ponkal mi. convoqué ponkal mi Ousmane Sonko mu ne mu ne ok mu jël portable am track numéro Ousmane Sonko teet teet teet ba ne tent tent tent tent tent Ousmane Sonko jëlul Ousmane Sonko nag il n'est pas très téléphone quoi trop téléphone mu jël portable am capitaine déglu bu baax si nga jëlee sa portable bind monsieur Ousmane Sonko c'est capitaine Touré de la gendarmerie nationale wax ne ko da nga jot plainte d'une jeune fii bu ne dañ ko viole une jeune fille mu ne dañ ko viole Ousmane Sonko ubbi message bi gis capitaine Touré bindaat beneen gis ni message am dafa djoum. message am dafa juum dafa bind monsieur Ousmane Sonko ndakate mu le message bi fekk Ousmane Sonko ubina le message am ba xol dara mu message bi bind honorable député salut honorable député Ousmane Sonko c'est capitaine Touré bu premier message Touré capitaine yaa déglu Ce premier message amul honorable député da a bind Ousmane Sonko nga xool xam def nga erreur ndax député la nga rectifié le même message bi sans ko bind honorable salut honorable député Ousmane Sonko wax message continue le message Mon le deuxième message Ousmane Sonko xool gis bàyyi donc maintenant pression bi di daw pression bi di daw le lendemain la ko Ousmane Sonko tontu ne ko ok dinaa ñëw wuy si le lendemain la ko Ousmane woote na envoyé na message changé waat na envoyé message donc la le lendemain la ko Ousmane Sonko ne ko ok on a dinaa ñëw ñu toog xaar xaar xaar gisuñu procureur woote accéléré ñëwagul waaye mais dem leen jëli ko dem leen jëli ko gars ko mais yow du noonu lañuy ñuy jëlee fekk dem leen jëli leen ma ko moment boobu nag bu Ousmane Sonko ñëwoon dee bu Ousmane Sonko ñëwoon yàqu na yàqu na donc convocation day am motif xanaa dëkk bandi moo am convocation bu amul motif. Sénégal nag gars yi jànguñu demuñu dafa bëri ay dof xam nga du dëkk justice convocation du am motif loolu amul fenn convocation day am motif laa illah tey tey Sénégal ay waay yàlla na yàlla yërëm askan wi waay ndeysaan xamuñu dara dara rëy làmmiñ gat bëri ŋaam xamuñu dëkk bu am justice musuñu fa màggee musuñu fa yaroo nekk ci dëkku bandi jungle ñu traumatiser leen mu gisee dëgg sax duñ ko xam yàlla <laughs> yàlla muccal waay Oh, oh, quel pays de bordel de merde. Donc, Moudjel Autom. vitre teintée marque mission diplomatique manam plaque mission diplomatique lañ fa vitre teintée une voiture banalisée mais Otom là. Moudjel, convocation oui yobul ko Ousmane Sonko dawal dem ba c'est le lendemain hein. ci la ñëwé jox ko convocation bi Ousmane Sonko signé décharger ko niko ma ngi ñëw ngi ñëw Ousmane Sonko daw amate son staff les journaux et le peuple sénégalais jour bii jour bii jour bii la ko Macky Sall yëg ku la wax leneen ne ko waxul dëgg ku la wax ko day kàcc nit ki noo ko bañ bañ bañ seedeel ko dëgg man bugguma fenn bugguma sos bugguma yàq ak nu ma bañ bañ bañ nit du ma yokk dara ci lu defut jour bii jour bii la ko us Macky Sall yëg woote réunion ne leen lu xew lu xew parce que gars yi waxoon naa leen ko dañoo bëggoon toggal Macky sàll ceebu jaga bu saf-sàpp ak ay 32 boulet def ci kaani bu saf-sàpp mu loqati dóor dóor wann ko mu saf-sàpp mu neex ci moom ñu ne ko président loolu tàqamtiku nga mu ne way saf na sàpp waaye ñu ne ku togg li mu ne mom Antoine ñak jom ne sama soxna Dior jañ mo la ko togal <laughs> Dior jañ mo la ko togal ah waaye li mom saf na di sur le plan lañ ko ko bëggoon tégal Macky Sall won dara jour bi la ko yek jour bu Ousmane Sonko genné jot plainte bi signé décharger alerté son staff alerté les journalistes alertaient le peuple sénégalais qui la ko Macky la wax day Nous ñu gars yi fen fa tar président xam nga bi la nag Macky saga Macky dafa saga nangam tandem, dina nangam tandem, L'accord, la ko Macky dañ ko wax ni Ousmane Sonko mo violé boy bi mune nañ gaaw mu mu gëna gaawé monté monte affaire yi yobbu ko ñu tejj ko ñu dindi immunité diplomatique am parlementaire am moins ñu tejj ko ci la ne nangam tandayam boy bi Mamour Sall ne ko boy bi du fi musa tok réunion la wax de Macky Sall saaga ndey mais Macky day saaga xam nga gars yi dañoo xamul dara gars yi dañuy dañuy ni ku nekk président yàlla nga Macky Sall Marlboro Light lay tox Macky Sall day naan wine vin day naan wine man maa ko wax man man sama bët sama bët sama bët Macky Sall day naan sàngara Macky Sall day tox Marlboro Light Light maa ngi sama bët ca Paris day saaga day jooy da ngeen foog ni jinne ngeen am wala benn malaaka <laughs> xamu leen lu xew yéen xamu leen lu xew toog leen foofu ca saaga ne dinaa nangam taan ndeyam moom Mahmoud Saleh Staline ne booy bi du fi mus a toog fils bi du fi mus a toog attends rek ci la Macky Sall jóg dem. man kay luma la wax takkal man waaye ñun duñu waxantu nii de lu la wax takal téré lu may sax nek di di werante luma la wax képp ku jégué Macky Sall jégué ko xam ku ko jégué dala koy wax musna ko fi wax am ben way na mo mé sa way noko xamé man pourtant bureau tel Macky Sall mako don installer gis naa ko mu taxaw di di tox Marlboro Light <laughs> wow, man kay luma wax lu luñ ma raconté li mo do ko gis Paris ca Paris Macky Sall di nan changara def na jullit la du ma sosal sama mbokk jullit de barke alxuraan maa ko gis muy naan sàngara man maa ko gis barke alxuraan maa gis Macky Sall muy naan sàngara di tox Marlboro Light kooku leer na de te Macky xam na li ma koy wax du ma kenn jullit ma koy fenal di ko sosal ah, yow mal xiyaam lépp dina leer donc comme nu leen ko waxee Sonko alerté la foule jour boobu ko Macky Sall n'est-ce pas Nous continuer bu Sonko alerter nak ci la waxé woté à la résistance woté à la résistance Ne résister l'oppression Ne résister Ne résister Ne résister moment bobu pression bi mettoon laal ci ndaw di ndey xadi ndey xadi njaay tak ñu woo ko moom ndey xadi njaay capitaine Touré woo ko mu jóge ci hôpital ba ne pour mu ñëw wuy si mu jóge ci hôpital ba vraiment débrouillé wu ñëw mu enregistré ko déglu ko mu dem mu jotaat pression procureur mu ne woo ko mu woowaat encore Ndeye Khady Ndiaye une deuxième fois Ndeye Khady Ndiaye ñëw ñu enquête ko encore mu demaat ca hôpital ba ca hôpital hôpital Fann procureur accéléré na ko woo ko te ko bàyyi mu dem te ko bàyyi mu dem yaa ngi may dégg moom capitaine Touré na ko ok y a problème mais boobu gis na fen yi on commencé na gis fen yi Ndey Xadi Njaay ne ko ah man day dama bëggoon nàmpal sama doom te instant yi dafa sonn te mënuma ko bàyyi fii nangam ak nangam mais je ferai tout pour ñëw troisième fois jour boobu nag aji saar nga fi di xaar ba woo nañ aji saar ba aji saar di ko xaar mooy troisième confrontation aji saar nga fay xaar ci la ñëwee fekk fa aji saar capitaine Touré confronté leen aji saar ne fa ay fenam yow aji yaa nekk nii aji aji yow yow aji yow yaa mu ñimeew aji saar xam capitaine Touré jotaat appel procureur ñu bàyyi aji saar mu ñibbi ñu dóor mandat de dépôt mandat mandat d'arrêt ndey xadi jour boobu dëgg-dëgg capitaine Touré nee na ko vous êtes en état d'arrestation mun ngaa woo sa avocat boobu nag pression bi tàng na mu ne ko mun ngaa woo sa avocat mais gis na ni lépp fen la man maa leen di wax de lépp fen la ndeysaan Ndeye Khady Ndiaye amul avocat capitaine Touré woowal ko xaritam woowal ko xaritam avocat ne ko fiis kaay jàpp ci boo ci jàppul mu ñaaw am na doomu jàmbur bu ñu bëgg a sànk fii maa doon déglu enquête yeeg lépp fen rek moo nekk ci biir dara amul ndaw si neen dañ ko viole amul lenn benn preuve bu ndaw du message du loo ko laaj mu ne sama téléphone daa yàqu woon amul message amul audio amul photo amul dara loolu kenn du leen ko wax de capitaine Touré moo ko wooloo copain am kooku dawal otom ñëw gaare lépp laa leen di wax mu ne ko jàppale ko boobu nag ndey xaree naan waa nu may def ak sama doom jëm a bàyyi hôpital te ma war koo nàmpal ah soo war na sonn de maa ko fa bàyyi ñëw fii mu ne ko ah kaay eh, comme téye nañ la xanaa ñu yóbbu la nga dem nàmpal ko ñu indiwaat la boobu ndey xarit moom dañ koo téere ñu ne ko xanaa ñu yóbbu la capitaine Touré moo ko jox chance boobu mu ne xanaa ñu yóbbu la nga nampal ko après ñu indiwaat la parce que procureur woote na ne doo na bu mu fa jógee moom Bassirou Gueye pour wax la sadi gi ngeen amal affaire avocat bi doon avocat xaritu Touré doon avocat wu Ndeye Khady gratuitement yoo xam ni capitaine Touré moo ko ko jox. ñu dugg ci auto capitaine Touré ñu yobbu nday xadi pour nampal ko ñu yobbu ko faan pour nampal ko muy nampal domam capitaine Touré nako bul ko dindi ci sa nipi bi bokoy dindi di dé capitaine Touré nako bul ko teggi sa dom bi bul ko teggi bokoy teggi di dé bokoy teggi di dé ci kasso bi bokoy teggi di dé ci kasso bi bul ko dindi jappal ci sa dom ji teel bul ko bàyyi boo koy bàyyi di dee boo koy bàyyi di dee Ndeye Khady avocat bi xool situation bi mu tàng dramatique mu woo commandant Mbengue ne ko wow oh, moo commandant fii ñàng na de fii tàng jër ki doomam ji matul prématuré la mu ngi ci dund dee dafa soxla chaleur yaayam dafa soxla weenu yaayam ngeen bugg ko jël sacrifier ko yóbbu ko nii ci ay kàcc ci ay fen yàq àdduna ndaw sii deful dara commandant Mbengue ne ko maa ngi ñëw moom moom boobu moom boobu commandant Mbengue moom procureur Bassirou Gueye moo koy pressionné commandant Mbengue taal otoom ànd ak gendarme bu ñu wooyee saane ñaari gendarme kenn ku ñu woyé saane ak keneen dama faté santam parce que audio dañu bëri ba nga xam ne def damay fàtte damay fàtte des fois parce que dama ko doon wër mais saane mom mi ngi ci ak benen gendarme ñu and capitaine euh, euh commandant beng yóbbu leen ñu ñëw faan mu ñew xol xol ni ka fofu nak def na fa ay paade ay aller retour bobu nak telephone ba ngay sone basir Gueye tey wajjo ju mo bon koko bon kooku moom mooy xaamun raa kookoy nitu safara wey mu nak ah, euh mo commanda euh euh procureur président euh, père situation bi dramatique na de doy na waar de xaw ma ko fiy jëlee mu ko je trouve que c'est impossible mu ko rend le possible rend le possible téléphone laa la wax de téléphone la lay wax ni de mu ne ko mu ko non c'est impossible mu ko rend le possible je la veux je la veux amenez-le-moi Ni la waxé mu ko je la veux

bayi fa saane ak benen gendarme bum andalon àndaloon otom dem ah capitaine Touré andak avocat bi foofu dafa beuri woni jaxoso exactement l'impossible n'est pas sénégalais andak capitaine Touré andak avocat bu mu àndaloon ku jox ndey xadi ñom tam ñu dugg sen auto dem ñaar ñi la xaw mu nuñ dafa débrouiller mom saane mom xam na xam nga rek parce que commandant mbeng num mu fa jógee moom tam neexuko sa way ko yuux neena na niñ nañ jàpp nañ jàpp nañ jàpp nday xadi lu fa sauvé nday xadi nak moy boko ko toy teggi sa dom di dé boo teggi di dé boo teggi di dé ndaysan ndeysaan cëy loolu cëy ni ni ni duñ ci génné ni dé wallahi duñ ci génné ni barke alcorane duñ ci génné ni ni ñoo bon ñi ñoo yes donc léegi nag foofu la dëkk ba tàkkee nag bu Sonko waree jóg nag dem wuy ji li ma leen di wax yëpp dëkk bi tàkkagul sonk génn cëy cëy dem boobu ñu yëkkati Sonko Sonko jóg dugg ci otoom ànd ak avocat am à direction palais de justice boobu gars yi dañoo miire palais de justice lu fa nekk ci ay gendarme cëy lu fa Moussa Fall yónnee ci gendarme xajul ci dëkk xajul ci dëkk armé jusqu'aux dents foo sànni mu takk matt euh, mu mu takk ci ci yaramu gendarme foo sànni matt mu takk ci yaramu gendarme moom Moussa Fall dugal fa junni gendarme ak juróom-ñaar mbedd li mi pa di xeeñ sa jour bu ñu nag woowee Ousmane Sonko capitaine Touré bés bu fa Ousmane Sonko tegoon tànkam c'est fini boobu teg nañ lépp di ko xaar mooy bu ñu ko woowee téléphone bu wuyu ji day des bu ñu ko envoyé message bu wuyu ji dafay des bu ñu ko envoyé message bu wuyu dafay des bu ñu ko indilee convocation bu wuyu ji woon dafay des mais sama père ma seen waajooju du nit de seen waajooju du nit de. ci nee na mu ci la la Macky Sall ne booy bi il est mystique nee na Macky Sall moom moo seede loolu devant tout le monde ne booy bi il est mystique parce que piège yu ñu ko dóor yëpp benn daanuwu ci Macky Sall assumé pale ne booy bi il est mystique mu ne ma seen booy boobu du nit de. ndëgg sërëx boko tagal tegal mu sey ndëgg sërëx boko tagal tegal mu sey da ngay gas fi ñëw tek fi ay feuy mu lay ko nga gas pele mu lay nga gas mu ne boy bi dafa mystique mais nak Basiru mom neena mom du bay mom mom gëmul mystique mom neena mom mom boy bi gëm na mystique sax mais day dul neena boy bi mom fogg mu lump ko mu ne mom fogg mu lump ko donc ci la Ousmane Sonko nak tak jëppët jepit wallahi la azim mu war wuyji gis ngeen jour bobu itinéraire buñ ko noron jaarale muy benen piège xam nga ñoo fa neewon ñi ray boy yi ñoo fa nekkon ci corniche bi ñi ray boy yi oh boy xol rek ñom tam ña daggaat sama affaire bi neenañu nañ muñ nañ acca nañ demaat nañ demaat dagg nañ ko nañ koy dagg garaawul nañ continuer acca xaaral ma te ma ñëw léegi ñu continuer sama gars yi buñ bàyyiwul duñ bàyyi